téléspectateurs yu global télévision jërë ngeen jëf ci teewlu bi bismillah ci xibaaru marax bi léegi léegi ñu wax leen li ci gën a fës. li ci gëna a nak uh, bokku na ci yëkëti yi ñu yëkëti marchand ambulant ya ci Sandaga ginnaw nak bañu yëkëte ñeneen ci koloban uh, ci Sandaga nak lañ daal di jubali bi leen dogal nak daal dina indi ay jamarlo uh, diggante agent municipaux ya ak ñi nga xamante ne ñoom marchand ambulant bi daan ci dikkaat ci bir yaatal gi ngir ngeen wax ngeen bir dektal leen rek xibaar yi ba ci bir xibaar yi ñu wax ci leneen lu soxal nak gouvernance de l'internet internet bi xew-xew nak tay ji la amone mu nek fukel ak jurom benelu édition euh, bi nga xamantene nak ren bi tem bi ñu ko technologie distributive bilan et perspective euh, ndela ndjay mo ñu fa teewaloon dina ci ñëwaat ngir rek ay léral ci biir xibaar ci baaru tàggat yaram nak mo nara a yi lay xibaar euh, nak ba Cour des comptes daal di song ay ministère bi lay yoon nak mi ngi song fédération sénégalaise de football ñom maître Augustin Sengor ak ñaa lem ñoom Abdoulaye Seydou Sow mi nga xamante ne nag moom moo nekkoon ancien président commission des finance ak Abdoulaye Fall euh, bi yoon waa cour de comptes ñoom lañu songal dañ ci dikkat ba tey ci biir yaatal yi euh, mbokk yi loolu moo nekkoon li ci gën a fës bu ngeen taaxir la ñu faram ko 19h tegal na ñaari simili ci Sénégal wërngal këpp bismillah ci xibaaru marax bi ni ma leen ko waxee woon ci bi ñuy door nag euh, yëkkati ba nga xamante ni yëkkati nañ ko euh, marchand ambulant ya ca Colobane buñ ca paree nag dañ ca toftal marchand ambulant yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk euh, ca marché bu Sandaga ndax li nga xamante ne moom la ñu lalee rek ci kaw tali yeeg ci kaw trottoir yi lañ daal di lal ba nga xamante ne oto pour mu jaar problème la doomu aadama it pour mu romb daal dina nekk problème bi leen dogal nag daal di tukkee ah, ci mairie bu ndakaaru waaye bi leen dogal daal di indi nag ay ah, jafe-jafe ah, ak i jàmmarloo diggante nag ña nga xamante ne ñoom ñooy marchand ambulant yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy agent municipaux Mansour Diassé mooñ ci indil ay leeral ñu teew teewlu ko jàmmarloo dox na diggante marchand ambulant yi ak woy takkadeer yi alxames ji fale ca Sandaga li waral li ni mel nag lii di jaaykat yi dañu naqarlu déguerpissement bi nga xamante ne ñu ngi koy amal foofule. moon Colobane moom moo fi amal temps yi passé que gis nañ ne depuis un certain temps mairie Alioune Ndoye dañ fi ñëw lu baree bari di yëkkati booy yi. comme comme vu que comme vous le savez fii yëpp ñun si dañoo nekk si illégalité ba ñun ku yëkkati booy yi mais aussi tamit dafa am ay des choses yoo xamante ni nañ ko njëkk a def ba pare avant que ñu yëkkati booy mais gis nañ ni dañoo dem ba instant bi premier ministre génnee wax ci affaire yi léegi affaire yi xawoon na am benn instant bàyyi ñu xaw a pause tuuti. mais je pensais que sax nit ñi dañuy waxtaan pour jéem a trouver une solution pour que ñu nekk ci mbedd mi mais dañoo xool un bon jour rek waa mairie ñëwaat te suñ ñëwee ñoom ni ñuy jëlee bagage jàmbur baaxul bu fekkee ramasse police police bu ñëwee danaa boo yëkkati leen seen bagage ñu yëkkati ku nekk ñu bind sa tur ngeen dem boo demee ñu fay ñu deloo leen seeni i bagage jox leen ay avertissement mais mairie dañuy ñëw ànd ak seen gourdin wala ñu ànd ak marto ñëw fekk booy to sa ñu jël seen affaire di dóor ci di yàq seen bagage yi te je pense que ni agent mairie yi agent mairie plateau ñoom ñëw di yàq bagage booy yi te loolu nag je pense que ni jaru ko soo ñëwee nit ki def na lu illégal mais yow tamit bu ko fayee ko par quelque chose d'illégal légal même parce que aussi tamit yow yaa nekk maire soo nekkee maire nit bu defee lu illégal da nga war a ñëw régler problème sa dans la légalité ngir moytu li ni mel di ay jàmmarloo ñi nga xamante ne ñooy autorités yi féetee fale ca mairie bi ñu ngi woo ñii di marchand ambulant yi ci ay waxtaan ak di leen ñaan ñu gën a nekk ay patriote te nangu loxo boobu nga xam ne tàllal nañ leen ko ngir njëriñu réew mi. warul nekk warul nekk bu ngeen toogee di saarante ak police te wóor na leen fi ngeen di laal dañ koy tere. waaw mairie ma rek maa ngi ñëw mais mairie bi la. bu ma fi ñëwee c'est pour régler un problème bu ñu xëccoo bu métti ci ci man sama njaboot ngeen mais xataa sama njaboot ngeen du ma leen wax lu dul dëgg mu bi ñu d'accord ku ci lal bu ngeen bëggee waxtaan ngeen waxtaan ak le maire ngeen xol lu muy demee mais mu leen ñëw opposé wu ci loo xamante ne maanam parfois da leen di yàqal lii bu naree continuer waxuma la keneen man je vous le bu naree continuer kenn dootu fi toog boobu léegi ñuy waxtaan maa ngi maslaa ak yéen ñu waxtaan xoolu lu mën a nekk ñu def ko waaw mënuñu ànd ci lu dul dëgg xeex bi xeex bi xeex bi moytu lañ tali bi xeex bi amul njëriñ mu nekkoon nag sous préfet bu ndakaaru euh, bu demoon nag seeti marchand ambulant ngir dox jàmm seen digg ak agent municipaux yi ñu wax ci leneen lu soxal nag ubbiteeg euh, cérémonie bi nga xamante ne euh, ci fukkeelu yoon ak juróom benn la moom moo amoon ñeel wàllum gouvernance de l'internet thème bi nag ren ñu ngi ko duppee technologie disruptive bilan et perspective ay waxtaan nag yu ñu seq rek ngir solo solos ak li nga xamante ne moom moo leen di xaar euh, jëm ci xarala yu bees yi nga xamante ne moom moo nekk ci Afrique euh, sow jant euh, Ndella Ndiaye moom moo dékkoon micro ñi nga xamante ne ñoo teewoon bi la xew-xew ñu teewlu ko. tey mooy gannaaw xarala yu bees yi ni mu duggee ci dëkk bi ak coppite yu bari yu mu indi ñëpp di ko ñëpp di ko dund ñu fexe rek ba li ci gën a baax mu fés te ñu jëriñoo ko. Ah, loolu nag euh, dafay laaj ñun Sénégal ak yeneen dëkk yëpp ñuy lëkkaloo di taxaw di waxtaan ku ci nekk ni ngay def di seet li sa morom ñi jël li ci gën a rafet li ci gën a baax ñu boole ko loolu moo tax ñuy daje ci ay bërëb yu mel nii di ko def. su ko defee nag euh, am na loo xam ne Union africaine dina ci jàpp CEDEAO dina ci jàpp euh, Nations Unies dina ci jàpp te gis ngeen leen ñoom ñëpp ñëw nañ. di wax ne ñun dafa am solo day am solo déjà au niveau national.

ñu mën a boole suñu xalaat pour défendre une position africaine ci technologie yi nga xamante ne mu ngi jëm suñu kaw loolu dafa am solo ndaxte xam nañ ne technologie yi bëri na avantage lool ba nga xamante ne kenn sañul toog ba technologie yi raw la ba doo ci dugg waaye am na ay également ay défi ay inconvénients yi nga xamante ne yooyu tamit faw ñu taxaw euh, waxtaan si Nous wax euh, ci leneen recensement 2023 euh, comme nous ni ko àdduna wërngal euh, Sénégal nag tey lay fukki fan ak ci juillet li nga xamante ne moom soxal journée population thème de notre santé nos droits Nous avons nag cinquième cinquième rapport provisoire Euh, population ak euh, habitat bi nga xamante ne nag agence nationale de la statistique et de la démographie di ANSD euh, moo ko daal di def ñu gis ne nag population Sénégal fii ñu toll fukki million ak juróom-ñett nag ñoom ñooy yeewoo fii ci Sénégal waaye leneen li nga xamante ne nag moo ci gën a am solo mooy góor ñi ñoom ñoo ëpp jigéen ñi ñu teewlu ci Mansour Diassé ci ay leeral agence nationale bu statistique ak démographie de ANSD na ji xayma bi am population ak lii di de ay chiffres yu bees ci ah, population chaque année day yokk population wala la muy yi euh, muy impacté population wala migration maanaam population. soo xoolee nag par at liy juddu mu ëpp fuuf ñiy faatu ba mooy tax at gu jot population bi di yokku donc euh, niñ ko waxee ci kàllamay tubaab euh, maanaam at bu nekk euh, soo jëlee téeméer doomi aadama ñetti nit nañ ci yokk ministre bi gàlloo lu jëm ci wàllum koom-koom plan ak coopération di rafet lu liggéey bile di xamle ne mun nañ cee sukkandiku ngir gën a tabaxaat seen politique publique. fukki at Euh, dëkk yëpp dañu war a euh, xayma euh, population bi ñaata la ñu saytu naka la ñuy dundee bu ko defee ñi nga xamante ne nii ñoom la yàlla cëral ñuy jéem a saafara jafe-jafe askan bi ñu xam askan bi naka lay dundee naka la dëkkee et yi loolu la permettre n'est-ce pas ñu xam donc exercice bu am solo la. Euh, bu ñu sukkandekoo ci directeur général bu ANSD li mu góor ñi ci recensement bi le moo ëpp li nga xamante ne mooy li mu jigéen ñi mu wóoroog li nga xam ne ñu bëri moom lañu yaakaaroon te mooy jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi euh, li koy waral bokk na ci xëy na li jigéen ñi diggan di jàng voilà soo yàggee école donc euh, am liggéey aussi wala nga bëgg a jàng ba pare door a loolu da ci am impact su ñoo xoolee aussi li ñuy wax fécondité maanaam njur gi wàññeeku na loolu lañ constaté entre 2002 ak léegi. ñu fàttali leen ne bile agence. moom moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum coopération technique jëm ci bitim réew. ak li nga xamante ne mooy wàllum statistique. jërëjëf euh, Mansour Diassé ñu wax ci leen lu soxal nag euh, travail domestique mooy liggéey euh, bi nga xamante ne moom la ñuy liggéey. ci biir kër gi te kenn euh, fayu ko loolu nag nekk loo xamante ne nag moom moo euh, soxal consortium régional pour la recherche en économie générationnelle di euh, CREC ñoom nag amaloon nañu ab ndaje tey ngir nag daal di waxtaanee li ni mel li nag ci la Latif Dramani bi nga xamante ne moom mooy bi daal di sukkandiku ngir waxtaanee nag li nga xamante ne moom moo Euh, lile euh, député bi di mam Awa Midi euh, Diop présidente affaires sociales Fofucha, assemblée nationale nak mom waxna na li nga xamantene nak mom moy ap ab kiko distinction entre le travail des domestiques et le travail domestique. waaw liggéey bu may wax fii nag mooy liggéey bi ñuy amal ci biir kër gi waxuma nag ñi nga xamante ne dañuy jóg di daan seen doole di def liggéeyu kër ñu leen di fay waxuma boobu liggéey bu may wax nii sax euh, mooy ñi nga xamante ne da dem bureau liggéey bu wàcc ñëw si sa kër di defaat yeneen tâche ménagère di liggéey liggéey boobu laa wax liggéey boobu laa jàpp ne bu ñuy xayma lu jëm ci wàllum PIB kenn du ko boole xayma liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy amal ci réew yu bëri te bu ñuy def ay natt jëm ci wàllu PIB kenn du ko ci sooraale liggéey boobu daal moom lay xamle moom la ñuy waxtaanee mais ce travail n'est pas pris en compte dans le calcul du PIB donc on veut présenter aux parlementaires les estimations qui ont été faites euh, au Sénégal et dans quelques pays de la région. en fait, ce que nous euh, préconisons, c'est de faire un plaidoyer. Parce que nous, notre travail, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. conseil bi ñuy joxe mooy ñu def ab ñaxtu ndax nguur ca fa bu ñu amee information yépp yi concerné jafe-jafe yooyu dinañ mën a def ab ñaxtu bu baax a baax su ko defee ñu mettre ko en œuvre. et de mettre en œuvre ñu wax ci baccalauréat atum 2024 nag mu mel ni résultat premier tour yi daal dinañ koy euh, xam euh, ci ab téere nag la ko directeur officier de l'office du bac daal di tënk ñu gis ne nag 23,4 pour cent lañu jàpp nag ne ñoo admis ci premier tour. Euh, ndax ci premier tour yi nag euh, lu tollook euh, ñeent fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom fukk ak ñaar fukk ñaar fukk ak juróom ci ay candidat ngeen baal ma ñoom ñoo daal di def li nga xamante ne nag moom mooy épreuve yi ci second groupe mu yemook 32 virgule 33 pour cent ci ñi fa teewoon ñu gis na nag lii lee ab yokkute la suñ ko tëkkale ak daaw am satu gànnoo moo ci indi ay leeral baccalauréat général qui a démarré le mardi 2 juillet dernier a livré ses résultats du premier tour, selon un document communiqué par le directeur de l'Office du bac À l'issue du premier groupe d'épreuves, le nombre d'admis est de candidats, soit un taux de réussite de 20. baccalauréat général bu ñu dooree woon niki talaata ñaari fan ci weerum juillet fësal na yooyu les résultats yi ca premier tour ci bu ñu sukkandikoo ci document bu bàyyeekoo ci njiitu office di bac at bii nag ñu am examen ñu ngi toll ci 35 492 candidats bu ñu xaymaa taux de réussite bi mi ngi toll ci 23 virgule 40 pour cent ci atum daaw mi ngi nekkoon. nekkoon ci 22 13 ci atum 2022 mu tolloon ci 24 virgule 05 pour si bu ñu ci njiitu office du bac di Cheikh Ahmadou Bamba Gueye moom nag mi ngi xam ni atum ren bi nemmeeku nañ ci yokkute bu baax a baax baraw ba ci atum 2023 ci bobu le document mi ngi xam ni lu tollu ci 49 candidats dinañu fas yéenee soobu ci yooyu la épreuve ci second tour taux bi daal di toll ci 32,33% ci atum ren bi daaw nak mi ngi tolloon 33,81%. ci 33,81% ci atum 2022 mu daldi tollu toll ci 33,58% lu ci 8784 candidats ñu am mention ñu daldi ci compter 156 mentions très bien ci atum 2023 mu 126 mention bien mi ngi nekk ci atum ren bi 1483 candidats ci atum daw ñu ko amone ñi ngi ci 1132 wayé mention assez bien ci atum ren mu ngi toll ci 7145 candidats ba ca atum daaw mi ngi nekkoon 5217 candidats yu amoon mention assez bien ci atum ren bi ñu nemmeeku ci ab yokkute bu am solo waaye ñu mun koo tënk ne ci atum ren bi amul benn jiixi jaaxa bu gàllankoor jàng njàngale mi ba tey ñu desandi ci bile bàkkanu ñu gis na juróom-ñetti euh, ndongo daal dinañ leen jàpp foofu ca Daara Jolof jàppewuñ leen lu dul euh, tricherie ca premier tour yi waaye nag am na ñeneen ñuñ jàpp bile yoon nag ca maatam lañ leen jàpp ci épreuve bu second groupe bi mam Awa Sall muñ ci indil ay leeral. jàpp nañ yenn ci ay candidat yu ñu amal ay yi ci examen ñaareel yu tuur yu baccalauréat yi démb ci àll àllarba ay épreuve yu mathématique ki fa nekkoon président jury moo fësal lu ni mel ginnaaw bu mu nangoo seen ay téléphone portable mu gis ni dañ doon na xool ay épreuve yu ñu corrigé ba pare ginnaaw bi ñu yëgalee waaye takk der yi jàpp nañ leen ba yóbbu leen ci kanamu yoon ñi nekkoon ci groupe whatsapp boobu te jàll ci premier tour yi dañ doon yónnee ay épreuve yu ñu corrigé ba pare seen ay naataango yi doon defaat ñaari arrière tour ñoom ñëpp ñu ngi nekk en garde à vue ñu war leen defeere aljuma ji ca tribunal bu maatam ñu fàttali ni juróom-ñaari candidat yooyu la ñu jàppoon ci wàllum yi ca premier tour ba dinañ leen jugé tey ci àllarba ji ca tribunal bu Louga ki jiite woon groupe boobu tuddee ko samp rek moom tëj nañ ko weeru lëmm yeneen juróom-ñaar yi nag moom war nañ tëdd fukki fan ak juróom ñoom nag nangu nañ seeni ay jëf ba tax seeni avocat di ñaan ñu gën a woyofal daan jërëjëf mu nekk lu metti ñu jàll nag ci xibaaru bitim réew ca Mali nag ñu gis ne nag ci ab communiqué euh, gis nañ ne mercredi démb fukki fan nag daal dinañuy autorisé euh, li nga xamante ne moom moo activité parti politique ak association yi nga xamante ne euh, dañuy yëngu ci wàllum politique ci fàttali nag dañ leen a suspendron 10 avril ba fi mu ne nii tembe démb ci àllarba ji ci lañuy ñuy nag dooga Euh, wàccee li nga xamante ne moom mooy daan ñu leen tegoon mu demook nag ñetti weer euh, ñu gis ne nag ko ab jàpp ba jàkkaarloo bu metti am na fa diggante gouvernement bi ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy association parti politique yi euh, ñu ngi xamle ne nag wàccee nañ bile daan ci ab communiqué conseil des ministre bi nga xamante ne nag soldat ya Euh, ñoo fa ëppoon ndax ci fàttali xam nañ ne soldats yi boobu ba léegi ñoom ñoo toog euh, diirub 2020 euh, ba fi ñu toll ñoom ñoo toog ca boppum réew ma ginnaaw nag ab jihadisme bu ñu xamoon foofule daal di suuxal nag bile réew ci ab crise boo xamante ne nag crise bu métti la ki nga xamante ne nag moom moo jiite soldaar yooyu teg ci nekk toog ca bopp réew ma di Assimi Goïta ca avril daal di woon décréter li ni jàpp ne nag yile parti politique nag li nga xamante ne moom la ñuy def euh, day euh, daal di tegatembe euh, li nga xamante ne nag moom mooy avenir politique bu Mali looloo waral nag mu daal di leen doon ajandi waaye nag wàcc nañ parti yi nga xamante ne nag boobu li nga xamante ne moom lañ doon kaas du leen lu dul euh, ñu jëlee fa soldaar ya daal di organiser ay élection ni ko niñ ko bëggee euh, ci réew mu am démocratie ñu wax euh, ci yeneen lu soxal nag bi yoon wàllum musique ndax gis nañ ne ki nga xamante ne moom mooy Antoine Christophe Agbépa Mumba ñu dën ko xam nag ci kofi Olomidé moom nag ñi ku ne xam na ne ci rumba congolaise ci lay yëngu Euh, conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication nag ñoom ñoo ko daal di woolu euh, di autorité de régulation bu république démocratique du du Congo euh, ñu jàpp ne nag moom dafa daal di yëkkati ay kàddu boo xamante ne nag dafay daal di menacer li nga xamante ne moom mooy sécurité penkum réew moom di république démocratique du Congo mu ngi ko daal di yëngalee nag ci ab émission bu amoon juróom benn fan ci weeru juillet Euh, ndax euh, nag moom li mu daal di teg mooy euh, guerre amul waaye nag conflit moom moo am foofu ca penkum République democratique du Congo mu daal di koy xamle ci ab émission bu doon jàll ci télévision nationale bi loolu nag ay kàddoom tax na ñu jàpp ne na amul efficacité mu ngi wane ñàkk efficacité nag forces armées République démocratique du Congo looloo waral ñu daal di koy woolu ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram fédération sénégalaise de football nag ñoom ñoo war a jàll cour de comptes ndax ñoom ñoo ay euh, ginnaaw nag ministre yeeg DG yi maître Augustin Senghor ak i jagañaaleem euh, kenn ki di deuxième vice président di Abdoulaye Seydou Sow nekkoon na moom it ministre ci gouvernement euh, bi ñu bi daanu bu Macky Sall ñu gis te nag tamit ancien de la commission des finances euh, di Abdoulaye Fall ñom ñep cour des comptes dal dina len di ndax na euh, dafa di de li nga gestion euh, ci Nak copar nga xamantene mom lañ mondial Qatar 2022 ak Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire atom 2023 ñu ci Abdoulaye ci des comptes jël ndogal di li ci gestion dirigeant fédération sénégalaise de football coow li ñu nemmeeku woon seen diggante waral ba structure bile daal tàbbi ci bile mbir kii di njiit ka Diogui Sène ak kii di deuxième vice président bi di Abdoulaye Sow ak ki nekkoon président commission des finances di Abdoulaye Fall ñoom ñëpp daal nañ leen déglu bu ñu sukkandiku ci taskatu xibaar bi yëngu ci wàllum tàggat yaram bu des sport yi la enquête ñoo ko amal ngir daal di lañ gi nga xamante Coupe d'Afrique des Nations gañ doon amal ca Côte d'Ivoire atum yi la enquête ñu ngi ko amal ginnaaw ñaari fan bi Sénégal amalee ñaari matsam yu mujj jëm ci qualification Coupe du Monde giñ fas yéene amal atum 2026 li di Cour des comptes sàkku ci njiital Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor ak ñamu àndal ngir ñu daal indi ab liste ci ñi mu gën gaawee jëm ci lépp loo xamante ne ni mën nga jëm ci subvention prime waaye tamit koppar gi nga xamante ne ni daal nañ ko dugal ci période mondialu atum 2022 ak pour compétition africaine au Sénégal mësa football gigante 2022 jàpp 2023 ci rapport yi nga xamante ni compte des comptes daal na ko biraloon ginnaaw 2022 juróon na coow ci di football Sénégal mu doon nag lu mat sëkk ngir ñu daal di mën a gën compte yu fédération sénégalaise de football ngir xool koppar yi nga xamante ne ni dugal nañ ko fa ndax jaar na yoon Sénégal mbaa sax nañ ko utiliser dana gën a yokk lii di football bu Sénégal tam war a doon luy jëriñ askan bi yëpp. jërëjëf Abdoulaye Dieye mbokk yi lii moo nekkoon xibaaru marax bi ñu leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi di leen.